allo salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di ziare bu baax a baax a baax mbokk yi wal qul wa qul jaa alxaqu wa zahaqa albatil inna albatila kaana zahuqa maa ngi leen di ziare bu baax a baax di am mbégte waa di jégalu nag ci fan yi yëpp géej gi ngeen ma gëj a dégg ma gëj leen a dégg yéen tamit waa nekk ci ay yitte yu xat-xat rek yu bare bari bari bari bari ñu ngi leen koy jégalu bu baax a baax a baax. waaw maa ngi déglu question yi incha allah jërë ngeen jëf allo wa rahmatullah waa sëriñ alaikum maa ngi lay ziare bu wa bi nan la euh, li nga la euh, l'ancien euh, premier ministre du Sénégal di Idrissa Seck nekk aussi chef de parti Euh, nekk un politicien waaye tamit ñu xamee ko ci euh, ndaamal daaru mu nekk koo xamee ni politicien la bu ñu ràññee ci réew mi waaye tamit nekk koo xamee nit ñi xamee nañ ko ak muus maanaam daal euh, borom xel mu rëy la ci arène politique bi nekk na tamit nit koo xamee ni da daan boole ci ay discours politique am ay aaya alquran ak ay xadis di wax ci diine nit la koo xamee ni tamit xam nañ tarixa yi nga xamee ni xëy na jaar na ci ak tey jii li nga xamee ni ci la nekk di ko woote donc loolu yëpp ay paramètres la yoo xamee ni jar na xam parce que tamit nit ki balaa ngay xam ay waxam donc war nga xam nit ki ban taxawaay la am ci société bi ak tamit ay waxam généralement ci ci ban anam lay jëm euh, xam ki wax tamit ndax théologien la manam ndax nitu diine la wala nitu aduna la manam politicien la euh, loolu yëpp dafa mata bayyi xel ci discours bo xamé ni euh, discours ba wax wala déclaration ba mu def mom lañ bëgg jangat jàngat kon moy tomb bu ñëk bi moy ñu xam kan moy Idrissa Seck d'abord Euh, am na présentation bu ndaw bu ma fi jot a def léegi léegi nii waaye li am solo fii léegi ñun ñu ngi taxaw devant une déclaration boo xamee ni wala boog euh, benn euh, kaddu goo xamee ni yëkkati na ko mu toll ci luy tolloo quatre minutes loo xamee ni wax na ko mu jëm ci wàllu diine waaye tamit mu jëm ci wàllu diplomatie. donc ñi kàddu Idrissa Seck yi buñ ko bëggee dégg mooy kàddu la boo xamee ni dafa séddilikoo ñaar maanaam kalaam la boo xamee ni zu xaddayn wala boog yan fasil ila faslayn euh, mooy lan li ma bëgg wax mooy lan mooy ni am na koo xamee ni daana boole ci ay discours am discours yi nga xamee ni discours politique la daana ci dugal alquran ñaareel bi mooy en tant que euh, leader en tant que sénégalais suis politique la diplomatie donc waxna donc lolu euh, liñ ciy mëna déggé moy li may bëgg lan bi ci un théologien c'est un politicien qui parle kooku mooy premier tome boo xamee ni kiy déglu war naa rëdd point boobu souligner ko bu baax politicien mooy wax théologien waxul du Mouhamed Galangay bi nga xamee ni moo demoon jànge ca université Al Azhar di wax bokk la ki nga xamee ni moo dem Sorbonne dugg science politique génn ñëw taxaw di wax ñaar ñooñu bu ñu waxee seen wax kenn ku ci nekk buñ ko bëggee peese dañuy xool ci yan balance ci yan màndaxe ak ci ban contexte waaye tamit xool aussi euh, naka lañu mën a jàngate wax jooju ak naka lañ ko war a mën a dégg kon bu ñu jàppee ni ki wax ni benn du nitu diine waaye nag donte du nitu diine waaye daana dugal diine ci ay discours am li may njëkk a wax foofu mooy dégg naa ci ñi nga xamee ni bala may ñëw man ci sama analyse personnelle dégg naa ci ñi nga xamee ni xëy na ñoo ko doon sànni ay xeer wala ñoo doon critiquer ay waxam ñu ni dafay jaxase diine ji ak politique bi léegi man question bi may njëkk a laaj mooy nitu diine boo xamee nitu Sénégal koo xam ne politicien nga ngay wax ci politique di indi di ci dugal diine ñu bëgg laa xarab bu fekkee ni ñi lay xarab tamit dañuy xarab réew mi ndax réew mi du def du référé wu ci diine di réewum laïc lañ yor pour ñoom politiciens yi waruñoo dugg ci diine ji maanaam waruñoo wax xuus ci diine ji bu saa yu ñuy politique waaye tamit buñ ko deful tamit ñu ne leen yéen ay laïc ngeen gëmu leen diine diine du seen référence bu ñu gisee koo xamee ni mooy dellu nag ci diine di ci indi ay aaya di wax ak nit ñi di wax ak ay jullit ñu ni ko non non non diine ji ngay wax nii waroo ko indi ci politique bi donc il faut que sénégalais xam lan la ñu bëgg loolu mooy point bu njëkk point bu njëkk bi mooy sénégalais il faut que ñu xam lan la ñu bëgg li may wax nii yëpp nag duggaguma ci discours bi li may def nii yëpp lu ñuy tuddee euh, méta discours la ah euh, méta discours mooy lan mooy discours boo xamee ni li may bëgg wax nii mooy la nekk ca ginnaaw wax ja te duggaguma ci biir wax ji kon point bu njëkk bi mooy est-ce nitu diine nitu politique war naa ci discours politique am est-ce que war naa dugali aayaaki hadis wala déet bu ko defee. ñu xarab ko bu ko deful ñu ni gëmul diine ci tubaab yi la jànge bëggul diine euh, du wax ci diine diine du seen référence tubaab yi ñooy seen il faut que ñuy wax kon kon maanaam li ñu liñ li ma ci mën a déggee mooy dañoo bëgg nitub Sénégal di ab jullit ñu jur la ci ci ci diggante ñaari jullit waaye nga nekk politicien booy wax da nga war a sukkandiku ci ñoom Descartes ak ñoom Aristote ak ñoom Socrate ak ñoom Karl Marx ak ñoom euh, Rousseau ñooñu ngay sukkandiku kon loolu dafa mel ne loolu lañ bëgg ñun kon bëggatuñu ñu dellu ci suñu pas-pas euh, leneen li ci des mooy euh, ki doon wax gis nañu koo xamee gis nañu ne ay nit yoo xamee ni jóg nañu attaqué ko directement ba am na ci sax ñoo xamee ni xaabaabal nañ ba génnee ko ci diine ji ma jàpp ni nag loolu wax ju garaaw la euh, attitude bu garaaw la boo xamee ni ñun en tout cas ñun suufiyanke yi li nga xamee ni moom lañuy ñuy attaqué toujours di ko xarabe sunu mbokk salafiste yi ak sunu mbokk wahabit yi nga xamee ni lu yëngatu ci ahlu tasawuf ñu ni kii génn ci diina ji takfir la ni mushrik nga maanaam la la même attitude jikko jooju nga xamee ni ñoom moom lañu am ñoom wahabit yi vis-à-vis des soufis tey ci suufiyanke yi ñoom ñoo jóg jël attitude boobu di ko dal di ko di ko tàppe ci kaw ay jullit kon ñu gis ni kon mawqif la boo xamee ni bu xatir la mawqif bu xatir la léegi est-ce que euh, loolu war naa am wala warta am euh, li nga xamee ni moom laa bëgg wax mooy ni euh, kii nga xamee ni mooy Idrissa Seck bi mu waxee li mu wax ba pare benn xam nañu ni du conférence boo xamee da ko waajal parce que tamit nit ki balaa nga koy àtte ba dem di ko génnee ci diine ji wala ngay jël ay waxam di ko interpréter di ko yóbbu fu la neex di ko dégg nu la neex di ko yekk lu la neex au moins war ngaa teey ci ay waxam benn ñaar jéem a xool ay waxam nan lañ ko mën a déggee ci lu jub bu loolu mënta nekk nag nga soogay dem xool la mu wax nañ ko déggee ci lu jubul waaye balaa ñuy yegg foofa mooy man li ma jàpp ni mooy li boroom xam-xam yi waroon na def mooy convoqué ko woo ko woo ko ci plateau defe naa nit ki balaa nga koy àtte au moins jox ko droit mu expliquer wu ci li doon wax jox ko occasion li ah yow kat Serigne Idrissa Seck li nga fi wax pour ñun grawna grawna garaaw na lool comme quatre minutes la te yow politicien nga tu n'es pas un théologien qui parle te xam nañu ni diine ji maîtriser woo ko maîtriser ko xamé ni amna na ay njuumte yo xamé ni xeyna na war na dal كن بحسن ظننا به وذرعا للاحكام الجزافيه التي يمكن لنا ان نوقعها عليه درءا لكل ذلك لن ورانا ديف موي دوغول كونغانت le temps le temps que ñukoy jox kaddu gi mu exprimer wu expliquer 4 minutes yoy nga xamé ni 4 minutes yu gatt la yo xamé dañ ko talal micro xeyna sax waajul lam doon wax xeyna préparé wu ko du won conférence bu ñu jox ko ne ko ni ko ah Idriss Seck yow kat wax nga fi lo xamé ni xel yi kat ñi ngi bëgg a xel yi kat ñi ngi bëgg tay kon nak ñi ngi lay ñaan nga exprimer wax li nga doon wax nga léral ko defna bala balaa atté lolu moy attitude bu ñëk bo xamé ni borom xam-xam yi waron nañ ko def waaye malheureusement malheureusement li am mooy kenn ku nekk jéem nga tëb nu mu gën a gaawee nga jël ko àtte ko yekk ko lu la neex ba dugg ci viam dugg ci passéem dugg ci léppam lenn lu ci nekk nga dugg nga dugg ci di wax ci nit ki vraiment ma jàpp ni nit ñi war nañoo ragal yàlla war nañu ragal yàlla ci benn mooy lan mooy balaa ngay àtte nit ki balaa ngay jël nit ki di ko yóbbu sawara balaa ngay jël nit ki ni génn ci diina ji

kenn ku nekk bëgg wut tur rek parce que am na ci ñoo xam ne balaa ñuy kontaan ñu dal ci ay nit yu am importance ci société bi balaa ñuy kon kontaan balaa ñuy am xol bu sedd mooy ñu attaqué ay nit yoo xamee ni nit ñi jox nañ leen cër respecté nañu leen lii mooy première pàcc ci sama commentaire léegi nag après ma soogay ñëw nag dugg ci biir discours am ñu décortiquer ko incha allahu taala gis naa sama xarit Ismaïl Gueye euh, mu wàcce fi lu mel ni laaj wala bokk loo xamee ni xëy na euh, am na lu mu jàngate mbir mi xam naa bu waxoon nag ci baat ci kaddu ñu mën koo dégg xëy na ci lay gën a leere waaye li ma gis bu bind ko mooy képp ku weddi benn aaya ci alquran génn na ci diine ji waaye tamit murtad nga ci lislaam ah man day jàpp naa ni ba tey jii nii Idrissa Seck weddiwul ab aaya ci alquran képp koo xamee ne dégg nga ni Idrissa Seck weddi na ab aaya ci alquran na indi firnde gi man day Mouhamed Galaye Ndiaye li ma dégg ci déclaration xanaa ma dégg leneen lu bokkul ak li keneen dégg bi bu dee 4 minutes yi nga xamee ne moom lañ ko tàllal micro muy wax gisuma fenn fu mu weddee ab aaya ci alquran karim kon jàpp naa ni balaa ñuy wax ni nit ki weddi na da ngay indi maqta indi fa mu wa fa mu weddee nga indi ko teg ko ci kaw taabal ji ñu mën koo discuter bu ko defee nag léegi ñu ñëw ci deuxième partie bi léegi euh, bu ñu bëggee jàngat discours am te jàngat bi ñuy def mooy lan mooy feeg moom jëlagul kàddu wax ni man lii ma wax nii lii laa ci jublu li ñuy mën li ñu mën a def lépp mooy ay supposition ay interprétation ay tawilaat ak ay tafsiraat li qawlihi loo xamee ni amul lenn loo xamee ni mën naa nekk loo xamee loo lu qat'i la mën nañu wax ni lii la bëggoon wax exactement kon li ñuy wax lépp mooy suñuy sunu déggin ca la mu wax sunu déggin ca la mu wax ah sunu déggin nag mën naa bañ a nekk la Idrissa Seck wax waaye tamit mën naa nekk la mu wax kon li gënoon mooy ñu déglu ko mu expliqué wu surtout ñi koy attaqué nga xamee ni kenn ku ci nekk ñi ci bari am nañu plateau wala am na ci ñoo xamee ni am nañu plateau boo xam ne mënees mënees na ko na woon a invité mu ñëw toog ñu ne ko ah Idriss yow kat démb wala bërki dem wax nga fi nangam ak nangam te jaxase nga xel yi parce que lii ngay wax kat lii ak lii ak lii ak lii lay nuróol kon sénégalais yaa ngi nii jullit ñaa ngi nii wax nga loo xamee ne xëy na dégguñu la yéem na leen am na nuñ ko déggee exprime toi maanaam waxal nit ñi dégg la leeralal li nga bëgg a wax kon defe naa ni loolu moo doon alxatwa al ula loolu moo doon jéego bu njëkk bi léegi nag li mu wax limu wax te ma japp ne sama mbokk yi ñi ci wax ñepp ñi ci ma ci dégg ñepp dañoo déggul wax ji du ab prétention du euh, dama ni leen dégg version bi mu la doon c'est une version juive lolu moy lan moy ni amna ñaar ño xamé ni ño sék xulo bi muy nari ak juif yi donte yow bu fekkee ni ab julit nga nek ab sénégalais yow do gisee qadiya bi nonu histoire bi yow do ko xolé non da ngay gis ni l'islam dafa ñëw juif yi bañ yow non nga koy gisee mais bo taxawé ci position ku neutre di jàngat phénomène bi mais juif yi lan motax tax ñoo gëm Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa lan moo tax nanguwuñ koo gën parce que dañoo jàpp ni ñoom ñooy le peuple élu ñoom la yàlla tànn benn ñaar mooy jàpp nañu ni prophète buy ñëw dafa war a bokk ci seen xeet ñoom maanaam dafa war a nekk juif te ñëpp ñun ñëpp xam nañu ni euh, Ibrahima alayhi salaam moom moo jur Ismaila euh, euh, ibrahim moo jur Ismaila te ñun ñëpp xam nañu ni euh, Ibrahima diggante Ibrahima ak Isxaqa Ibrahim euh, Ismaïl pardon Ismaïl ak Isxaq Ismaïl moom moo meññat yonent yàlla Muhammad et Isxaq moom moo meññat juif yi te ñoom ñaar ñëpp ki leen jur kenn la muy Ibrahim ñooñu kay ay doomu baay ñooñu bu ñu nekkul ay doomu baay lan la ñu war a mën a doon kon bu ñu nekkee ay doomu baay histoire di dox ba kenn ci doomu bàyyi surtout kenn ci doomu bàyyi di sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam taxaw ni yenentu ne ko dedet doon wax ni c'est un bédouin arabe il n'est pas un prophète c'est un imposteur ce sont les juifs donc Idriss Seck il a raconté l'histoire d'un point de vue d'un point de vue juif donc pour histoire bobu mu netti dafa bëgg ni juif lañ ko version bobu la gëm parce que amul dara luy ni version bobu la gëm dafa wax ni rek ñaar doom bay ñoy xulo kenn ci doom bay yi taxaw ni taxaw ni man ko do mom donc lolu moy histoire nonu la histoire bon gis na ak yenen ak yuñ ci walu ibrahim alayhi salaatu wasalaam ni sara motax tax mu génnee haajara kii demé nonu lolou bu ngeen demé ci téré histoire di ngeen ko ci fekk bu ngeen demé ci téré tarikh yi di ngeen ko ci fekk mais ça ne veut pas dire que ni c'est la c'est la vraie version c'est la version authentique ça ne veut pas dire que lolou moy version ba amone parce que alquran waxuko mais lolou tarikh la lolou tarikh la te lolou buñ ko bëggono xóotal sax mën nañoo dem ba ba mën koo layal kon loolu man jàpp naa ne jarul ñu ciy takfir nit di ko génne ci diine ji beneen point bi nga xamee ni xëy na moom laa jàpp ni moo garaaw ci li mu wax te feek joxaguñ ko mu expliqué wu mënuñoo sax ni jàppe ni lu garaaw la mooy lan mooy ni toujours damay fàttali toujours damay fàttali ni euh, li may wax ni maanaam sama déggin la mën naa am moom waxewul noona léegi nag sama déggin nag man mënuma ci sukkandiku di génne nit ki ci diine ji wala di ko di ko yekk lu ma neex fekk dégluwuma ko ba mu expliqué wu leeral lim mu bëgg a wax mooy point bi nga xamee ni ci la waxee ni waxe kook imam bi nga xam ne moo nekkoon Arabie Saoudite mu ni ko alquran waxul makkata waaye bakkata la wax bakkata bon alquran wax na makka foofu njuumte la njuumte boobu mënuñu koo génne ci diine ji ngir loola alquran wax na makka wax na bakka du ma ñëw ci origine mot bi parce que loolu dañ koy bàyyeeg luxaw yi ni ñoom boo ca demee da ngay gis ni ñoom seen bopp d'accorduñ ci cosaanal baat bi dakuruñ ci déjà yi ma dégg gun yëpp version yi fi indi yëpp fi mu toll nii mën naa leen indil benn version boo xam ne dégguma ko ci kenn te mi ngi ci téere yi ci màkka fan la bakkata fan la jóge dañu ni li summiyat makkata bakkata li annaha tabukku kull man jaa ilay ilayha ghatrasatan c'est-à-dire képp koo xamee ni ñëw nga màkka pour détruire màkka pour yàq màkk pour dal ci kaw màkk bépp tyran bu jóge feneen di ñëw màkk da lay repousser da lay jox kurpañ nga dellu ginnaaw ñu ni bakka loolu lay teg kon bo version yi bari na am ñu ni bakka euh, béréb bi la ñii ni bakka mag mooy kaaba gi donc euh, explication yu dul jeex a jeex la ci luxa wi yi ni indi ñi jàng luxa indi nañ ko ci kon loolu du du loo xamee ni mën na cee sukkandiku pour mën a encore takfir nit génnee ko beneen bi ci des beneen bi ci des mooy euh, li mu wax nii euh, makkata bakkata mi ngi jóge ci bakka maanaam pleurer ba pare mu wax ni xëy na mën naa am ni du fii Euh, lan moo ñuy wax ni ñu du fële du Jérusalem lan moo ñuy wax ni ñu du Jérusalem ba pare mu wax ni moom xam na fan la xam na fan la waaye balaa mu koy wax il faut que euh, nu mu tuddati euh, sa palestiniens yi ak arab yi dajaloo mu soog leen di wax fan la man loolu ba tey jii bu dee yàlla rek moo tax ñuy wax ba tey jii gisuma ko mu weddi fi dara parce que bu ni woon Pikine la wala mu ni Géejawaay la ñu ne ko ah sama waay kaay yow kat yenentu bi doxalewul nii waaye ba tey ba léegi waxaguñu fan la koo xamee ni waxagul fan la nga ni ko weddi nga defe naa ni loolu kat sëñ bi ak tooñ lay nuru donte nag waxam laaj na j'insiste donte waxam la muy junj lu garaaw la laaj na ñu woo ko ni ko ah wax ñu loo ci jub parce que li ngay wax nii kat bu dee li ñu li ñu jot a dégg nii moom nga ci jublu lu garaaw lay doon léegi nag kaay ci plateau bi nga toog nga wax ñu yow lan nga bëgg a wax loolu mooy le minimum loolu moom mooy la minimum le minimum mooy ñu woo ko mu expliqué wu loolu daal laa jàpp ni intellectuel yi loolu lañu waroon a def li ñu waroon def mooy invité ko Sénégal réewum dialogue la Sénégal réewum waxtaan la waaye du réewum takfir ñi fiy def takfir nag ñi xam ñoo fi woo di ku wax benn baat ñi yëkkati ko yëkkati ko ba ci kaw toroxal la toroxal sa njaboot bëgg loolu yëpp defe naa ni mën na ñàkk il faut que on reste des gens yoo xam ne ñu sancé lañu da ay nit yoo xamee dañuy wax ci xam-xam di àtte nit ñi ci kaw xam-xam te génn ci cadre bi nga xamee ni cadre cadre takfir la loolu buñ ca duggee daf ñu yóbbu foo xamee ni fu sori la gis nañ société yi nga xamee ne ñi ngi yàqu gis nañ société yi ni ñu leen attaqué ci jamono gis nañ tamit loolu fan la jëm ci radicalisme dans les idées ak le fanatisme dans les idées ma jàpp ni loolu kon lu ñu war a mën a moytul Sénégal la ñu bañ a dugg ci gaal googu ndax gaal gi nga xamee ni ci la ñu nekk gaalu jàmm la gaalu dialogue la gaalu waxtaan la kon li ma gëm mooy dañ ko war a woo ci plateau ni ko ah yow kat li nga wax exprimé wul leeralal li nga wax ba boo fi jógee ñu xam ni lii nga bëggoon a wax. waaye nit ki wax ben wax bo xam ne ñuko sax fu mu yekkee nàkkam kenn bëggatu ko déglu mom daal nañ ko taxir nañ ko yekk lu nekk ba paré c'est c'est très grave c'est très grave dans une société. lolu deuxième bi moy ni ku toll na Idrissa Seck bu waxé dañ ko wara tontu ci tang tang bi déedéet du nit ki ak même bu amee cër ci société dafay wax rek ñu tontu ko ci tang tang bi déedéet nit ki bu waxé bu laajee limu wax bu ay teunk la. xam nga Idriss Seck damay wax ni il n'est pas un théologien lolu ñu bari dañ koy faté du ab théologien donte day wax ay discours politique am li ci dugal ay ay di wone ni dégg na dina ji xam na nak il n'est pas théologien kon ay waxam da ngeen koy yobbu ci arène politique ba ngeen atté ji ko fa légui nak lu mu wax ci dina ji ci lu graw ngeen wo ko ni ko ah yow kat wax nga li ak li ak li légui nak bëgg nañ nga léral ñu li ak li bu ko défé ñu xamal la ne da nga joom du ni nangam ak nangam ak nangam la waaye du ñu tëb rek taksiir nit ki jóg rek di attaqué nit ki loolu sëriñ bi loolu bu fekkoon ne ku def lu mel noonu ñu ñëpp war a jóg dal ci sa kaw day garaaw dañuy dugg ci société bu graaw la ñuy dugg dañuy dugg ci dix-septième siècle ak seizième siècle ci Europe nga xamee ni li ñuy tuddee mahakimu teftiche di commencé dugg ci xel nit ñi ak nit ñi discours bu ñu wax bu dëppoo la ñu jàppale tëj wala ñu génne la loolu c'est très grave loolu wahabiti ak salafiste yi ñoo ko dese. ñoom ñoo dese loola nit ki euh, euh, bu waxee dara dañ koy woo laaj ko loolu la diine wax gis nga même ñoom laaj sax xal laaj ci yow bañ koy àttee dañ koo convoqué mu ñëw donte politique lu bari dugg na ca ba ñu def ca lañ cay def waaye nit ki dañ ko war a convoqué ba mu ñëw bu ñëwee ñu ne ko ah yow kat wax nga nangam ak est-ce que da nga ciy dellu wala wax waxal lii wala leeralal lii bu leeralee ba pare ñu soogee xam fan la taxaw ci moom man daal lii laa wax mooy waxuma ne li mu wax garaawul loolu aussi ñu bari il faut que ñu xam limay wax moy lan waxuma ni li wax graw dama ni pour ñu mëna xam gravité wala bok li wax ñu bu ko tuumaal liko attaquer dañ ko wara convoquer mu ñew ñu ni ko la li nga wax. allo salaamaaleykum wa rahmatullah wa sama serigne sama kharit ka donc ma ngi fatali aussi kani jëraluma ko par loolu il faut que ngeen xamé ni ñëwuma pour défendre Idrissa Seck je défends des idées ay xalaat lay défendre. dama jàpp ne nit ki balaa ñu koy àtte wala ñu koy attaqué di ko génne ci diine ji war nañ koo woo convoqué ko mu ñëw ñu wax ko li nga wax nii loo ci jublu kooku mooy benn ñaareel bi waxuma ni li mu wax garaawul wala boog li mu wax li mu junj waxuma ni mënees na cee dégg lu garaaw ba léegi waxuma ko dama ni nañ ko woo mu ñëw mu exprimer wu ci lii mu wax ndax lii mu wax kat mënees na cee dégg dégg ay dégg yu garaaw ñetteel bi mooy ni. musul wax mom Idriss Seck ni fini adje du il faut que tamit ñu ragal yalla tuti. il faut que nit ki lam wax ñu jaaraat wax musul wax ni fiñi adje aje du foofa bakkata la wax il parle d'un concept il parle d'un mot qui se trouve dans le Coran Ben baat bu nek ci Quran. Bad baat bobu la wax ni mom xamna fan la Ta, lolu manes nako wutal ta'wilat yu bari mooy lan mooy ni moom mën naa wax ni bu ñu bu ñë ñëpp ñëwee toog mu ni leen màkka la mais dama bëggoon comme ni mu ko waxee dama bëggoon dajale palestiniens yi ak israéliens ci benn taabal parce que ay doomu baay lañ te ñun waa Sénégal ñun ñoo gën a apt pour dajale leen donc mënoon na nekk benn tactique politique boo xamee ni moom la bëggoon a def waaye ça ne veut pas dire dafa bëgg a weddi ab principe lu toll ne aj parce que tamit yow mii tey jii di wax ak man boo waxoon benn baat tey jii ci lislaam loo xam xëy na euh, am na lu muy nuróol du ma tëb mukk ni doo julit wala da nga da di weddi kaaba ga parce que yow julit nga yaa ngi julli yaa ngi dem ci jàkka ji yaa ngi aji màkk di ñëw kon moom lu mu wuti woon màkk lu mu fa wuti woon bu fekkee ne du foofu lan la fa doon wuti bu fekkee ne du loolu ah moom nee na nee na lan la julit la julit ñi fan la ñuy demee màkk ana ñi doon aji màkk ak boobaag fan lañ doon aji xanaa kon du foofa donc amna yo xamene wax deug yalla waruñu ko mën a dégg ci waxam ni feeg jëm ji ñewul teew ni li la ci djublu li rek la bëgg wax ci lu gatt ngeen baal wa salam alaykum wa señ bi li nga wax amna solo poser nga question yu ama am solo nak nga poser moy ni ñiko tontu lutax japp ma ni war nañu ko mën tontu wax akay ah, war nañ ko mën tontu waye bala ñukoy koy tontu ba yegg ci yenn discours yo xamee ni yu extrémiste la moo ñu woo ko taaj ko xam nga nit ki nekkul koo xam ne dafa nekk ca Chine ñu ko war koo convoqué mu ñëw Sénégal pour exprimer wu koo xam ne Thiès gii la dëkk nekk ab Sénégalais di yewoo ci sunu biir nga xamee ne suba mën nañoo dem woo ko mu ñëw ci télé yi ñu wax ko ni ko waxal li nga bëgg a wax ñu dégg ko léegi nag Idrissa Seck politicien la mooy li nga wax politicien de métier la koo xamee dafay def ay tig tagam xol nu mu jël ci nu mu mën ci réew mi man duma ma exclure waxuma ni dama koy atténé duma exclure ni limu mu doon wax amna sax ñuko juñu ni xamna ni aduna bi légui israélien yi dañoo ci am solo lool kuñ jappalé nga doon président mën na am fofu la bëgg pu taxlu dugg mais man ba tey jii mënumaa wax ni looloo doon ay intention mënuma ko wax parce que loolu la tuddé procès d'intention te loolu dañ koy bañ maanaam jël nit ki xool ci sa yéeney bopp yow nga jël ko atte ci nit ki dugal ko ci kaso tëj ko damm caabi ja loolu lay tekki mooy yow loo wax rek man mën naa am nu ma ko dégg ci sama biir xel rek daal la ci daal di génn wax def ay déclaration tëj la donc loolu lañu ñu war a moytu ki wax ab sénégalais la Thiès gii la dëkk soixante di kilomètres de Dakar nañ ko convoqué mu ñëw bu lànkee bañ a ñëw nag bu boobaa kenn ku nekk il est libre mu dégg ci waxam lu ko neex mu dégg ko dañ ko woo ci plateau yi mu exprimer man daal lii laa wax waaye nekk fii jël waxi nit di ko xëcc di taaw yi kenn ku ci nekk ñi ko contre ci politique dugg ci ñi ko contre ci diine ji dugg ci ñi kenn ku ci nekk lii maanaam euh, euh, ni ñu koy waxeeti di profité pour euh, xëy na fa nga farak fa nga yooyu yooyu ñun vrai que ay intellectuel ngeen daa wax de waxuma nag ay par par parloo bu dee ay intellectuel ngeen noonu la ñu war a def. intellectuellement parlant ñu jang ci diiné ji ku wax dara lu mu war loo xamee daf koo junj wax té léragul dañ koy wo ba mu ñëw ñu ne ko ah yow kat wax nga nangam ak nangam li dal la wax défendre kenn mais dama gis ni sama gis-gisu bop nak mu tawaadu ni ci ak modestie moy ni japp na ni lool lañu warona def bala ñukoy attaquer bala ñuy def quoi que ce soit ah sama sëriñ waaw baxé ma tur wi rek baxé ma tur wi waye li ngay wax amna solo lool léegi euh, li ma la bëgg a tontu mooy euh, du ni dañuy défendre yenn intérêt yi rek jël nit ki attaqué ko parce que nit ki boo ko dee attaqué da ko war a teg ci yoon euh, ci yoon maanaam mooy fi nga xam ne fi lañu ñu war a jaar pour mën a attaqué ni léegi nag Idriss Seck kon bu boobaa li nga wax nii mooy dañ koy yóbbu ca arène politique ba discrédité ko ci wàllu politique ne ko ah yow kat sénégalais yi nga bëgg a nax jaar ci diine. wala bok jaar ci euh, yahudi yi pour mën jot ci réew mi attaqué ko ci walu politique waye duñ ko yobbu ci arénu ca jàkk ja manam caw ko ay yar ni ko yow kat li nga wax genn nga ci l'islam donc ñaar yoyu le Sénégalais wara ragné un politicien qui parle sur la politique qui euh, prononce un discours politique donc dañ ko wara yobbu ci arène politique ba wa politique atté ko parce que li muy def ni récupération lañ koy tuddé bu fekkone ni

léegi nak ñu atte ko ci cadre booba waye duñ ko jël génne yobbu ko ci jàkka ji génne ko ci diiné ji manam bu féké ni dégg nañ li bu ngeen dégg ngeen lima bëgg wax moy il faut ko ñu def nuance bobu il faut ko ñu tàqale digënté ki nga xam théologien la di wax ak ko xam c'est un fin politicien qui parle. allo alaykum wa rahmatullah wa sëñ khadim Mbay li nga wax nono amna solo lol lol lol lol euh gis nga li ci am mbir mi moy nit ñi dafa mel ne dañoo maanduwul lol parce que gis nga li fi xew. Euh, ak acharnement bi am ci Idrissa Seck ak niñ ko yëkkatee yóbbu ko fu sore gis nañ fi ko dem ba ci xaayatul mabka nga taxaw fa pare nekk ministre nekk ci réew mi def ko coow li ci am yëpp amu ci waaye ñun en tant que ay intellectuel ak ay théologien bu ñu nekkee di wax ci yu mel nii buñ ci dugal wàllu politique donte am na nag ñoo xam dañuy jël politique di ko dugal ci biir ndax fii ñun nekkuñu fi pour war a faral Idrissa Seck parce que dafa am parti wala dañuy paral Macky parce que dafa am parti jiite réew mi ñun li ñu ñor mooy euh, wàllu diine gi wàllu politique bi nag ñu bàyyi ko politiciens yi ñoom ñu waxtaanee ko li am solo fii rek ñu bàyyi ko xel mooy ne Idrissa Seck def na déclaration déclaration bi am na lu bari luñ ci mën a dégg am na yu garaaw yuñ ci mën a dégg waaye nag pour ñu mën koo pour ñu mën a jóg pour dal ci kawam nag dañ ko war a convoqué mu ñëw ñu toog waxtaan ak moom man daal li ma wax mooy mooy nañ ko taaj. taaj bi daal mooy li jaadu nañ ko def balaa ñu ñuy wax dara wala ñuy jëmale dara ci kawam wala ñuy yëkkatee atte di ko di ko xëpp ci kawam nañ ko woo mu exprimer wu.